taxawoo ko moom ak fii ñu du ko taxaw leen li ci des ñëpp ñun suñuy bàyyi lañ koy defal bu ñu neexee ma nañ ko fomp waaye màggalu Sëñ Tuubaa moom ku ñu jox woo da ñu ci gis ku bëgg dara tuuru na nga jéem a fomp màggalu Tuubaa ak guñ ci dama leen di alerte képp boo jëmee ci làmb ja kat yu ndaw yëpp nga teg leen ci suuf mbër mu mag ma taxaw jàkkaarloo yow nga dëkk ko ah ku dugg ci tànk Sëñ Tuubaa de bi raasu mën baarase bi yàlla ngay bëral de kon nag liñ doon woote ak li wut yépp fekk nañ leen ci may nañ leen ko te taxul ñu ñàkk dara waaye daal njàg daal lañ ñu fi bàyyi waaye sëñ Bala daal ak ñaan la mën nañ ko ñaan jox nañ ko waaye nag képp kuñ jëm ci yow ba influence ba nga nar a joxe ndigalu màggalu Tuubaa de boo ko defee boobaa da xam ne murid dañ lay wet ndax ndigal sëñ Tuubaa mag ñi fi nekkee nag ay victime lañ ci lii ndax dañ leen a wax rek dañ leen wax ñu wóolu ko gëm ko waaye seytaane dugg ci biir tawat ju jar euh, tëj sa jumaa ji wala sa jàkk ji mosu fee am bañ bañee jullu bañ bëggee xeex lislaam it sëñ Tuubaa taxawoon julli ci biiru Ndar ñu yóbbu ko ci géej gi mu julli fa ñu yóbbu ñaar mu dellu si kooku nag jógu fi tey jii loolu daal laa xam ne danaa ko rax ci wax ji bëgg ñu xam ne ay murit lañu te yemuñu ci murid ay saalix lañu seen baat def nañ ko ñu suñuy kilifa digal de nangu nañ ko daañ ko def waaye ñëw ci kanam ku ci yëkkati sa kàddu yaag ña tax ñu yëkkati ko rek la ñuy boole ci suuf waaye kenn mënut a tee murid di ñëw Tuubaa ndax moom ku dee da ñëw Tuubaa te dee benn yoon lañ kon daal lu mën di xew ak luñ mën di wax ci ay kaa ci ak lu ñu mën a def loo na fi yem ñoom xam nañ ñu tawat ji moom dugg fi ndax sëñ bi aar na dëkk fi bu fi duggoon bis bi set junni ni tey dee te itali ak France gën a docteur fuuf te mënuñu koo faj suñu koy dee am na yeeg yu njarax ñoom ñun xam nañ ko kon nag ñu yéen itam doy na sëkk nag ngeen yem ci mbir mi doy na sëkk kët ngeen yem ci nangu nañ ko pousse ngeen ñu pousse pousse nañ waaye sës nañ yéen a ngay waajal tabaski ga yéen a ngay waajal màggul Daaru Salaam daan ngeen màggul eh, sëñ sëñ Fallu màggalu Daaru Musti ngeen teg ci suuf màggalu suñu soxee bu noonu màggalu sëñ Blaat gi ñu nangu màggal gu màggal la leen di xaar bu ngeen ci yëkkati seen kàddu yéen ak waa réew mi lañu boole teg fule loolu la sëñ Tuubaa kon nag maa ngi sant sëñ mu den sant yéen ñu ko jël si sëñ daal mënu ma cay weesu juróomi kàddu yi ma ci wax dëkk bi daal def na ci lu ñëpp gis teg seen bët njaboot bu sëñ Tuubaa gii ñëpp teg na ci